Abdoulaye Way Mamadou Yatta Saay am na fi nit xam ni seen wax na neex ba lu mu wax ndagam Mamadou nit ñoo ñee Yatta Saay yenn saa yi du mu wax ndagam. yaa man yaa ko doole. incha allah yaay jël daal bur yàllaay may jaamam bur laa wooy xañu jaamam yenn saay mi ñooñee mamadu yenn saay bu mu wax dëgg inshallah nuyu mbooloo mi di leen ziyaar di leen baalu ak tey ak di ñaan yàlla jàmm sax ci réew mi di am mbégte lool ak contentement bu rëy ci doyal samay kàddu ci ki may bëgg a wax maa ngi sant yàlla bu baax ci teere bi ma teere bi daay tey ndax yaakaar naa ne lii mbir la boo xam ne sama mbiru bopp mbir la boo xam ne fu ma waroon a nekk tey ci àddina yàllaa ma suturaal comme fekk ma ñibbi si sama liggéey noppi ci bitim réew waaye lii bu ma fekkoon bitim réew sama liggéey noppeetul sax danaa ko fa bàyyi ñëw teere ko wax ci baat yii ma la ko wax pour guddee ma delluwaat sama newal ndax ci ki may wax moo ko jàll ci ki may wax moo ni toll ci ki may wax moo liggéey loolu fii ci réewu Sénégal jëmm yàlla tax jëmm doo xam ne bu jàlloon fii léegi fukki million ne képp koo xam ne mos ngaa lekk Sénégal ci Sénégal pour laal ah du ma ne fukki yi fi jug de waaye balaa fii jug dana fi juróom-ñaari fan ndax ñaar ñoo yomb dërëm ci seen biir barke Cheikh Sallou Fadiaka bu fi jàlloon fukki million nag bu ma sa teral bu ko laal dana fi def seen ñaari nit yoroo bu ñuy dox dërëmam bi ngi seen biir moo xam dara ko dox directement wala moo xam lu fi jël ku mel ni boo campagne def ci moom pexe bu def ci yow pexe nga yëg ko te xamoon na moo na fi ginnaaw baa bu def ko ci ku mel ni mu def ci yow pexe nga yëg ko te loo xam ne moo na fi ginnaaw kon yéen damaa ak yéen tamit sama bàyyi boo dundee toll ci jàng jàng ba yëg sa jas toll ci liggéey bi góorgóorlu daan sa doole ba samp ci lii société bu mag boobu nga xam ne mooy defar ndox mu sell mu neex lii nga xam ne mooy ak a Terra di sa alal bopp di sa ndoxu bopp nga investir ko ci sa réew au niveau national et international dajale ak njaboot weer wu dee ngay fay ñu ne ñaata nit lañu ñu toll ci juróom benn junni nit six mille personnes à travers Afrique yoo xam ne bu leen dee sa loxo bi mooy fay. nga dimbali réew mi dimbali sa say bopp fonk say waajur fonk say nawle parce que moo jaay ko war a toppee ñu dugg yëngal ndox bu yàlla ko doon producé waaye producé yi ban saa suñu dëkkuwaay dem xool fi nga doon mooy gën a féex dina fa leen dëkk di fa mérité yow ba nga leen jëlee da nga dem sa cosaan muy yëngu dëgg dëgg parce que doo ko presse te doo dalaw xam nga fa nga jëm saa yi ñaanaloon nag ñu fekkee liggéey nañ ñu tuddee ku nekk rek seen sa bénéfice bu demee sa day nga yomb bu demee ba mu la door sa day la fi maay gaaw yaa ngi yor tey seen yaay Adja Maram sama doom ñaanal ma ñu fekkee nga la bu dee liggéey naa si kër bàyyi yàlla bu loolee Mamadou gën a ko dam mu ne bu dee liggéey naa si kër bàyyi yàlla bu loolee Mamadou gën a ko dam mu ne ko foo dugg yàlla fi ñu yàlla yi kon yow président mu saxal jàll di nga am am di nga am jàmm di nga am sag di nga am sutura ndax liggéey nga ko ci sa kër waaye liggéey nga ko ci réew Sénégal nag dafa ko foo xam ne mbokk yi ku ko bëgg ciy dégg ñaari nga nekk ci yow yërmande ak dëgg ku lay laaj réew mi jubbi li may wax ak te gisoo moom yërëm nit ñi moom wax dëgg ba nga ko si yow boo ko joxee réew mi mu kuréel Sénégalais yee sonn Sénégalais yee maar dafa jot tabax mooy baax na tabax stade yi baax na tabax marché yi baax na waaye ba am projet bu muy suy mooy kii bi xool ay projet nit ñi doon kii defuñu kii lii la nit ñi defuñu doon kii lekkuñu naanuñu ku lekku naanuñu nag doo gis foo leen kon li ëpp solo ci doomu aadama yi mooy ñu fexe nit ñi seen biir am dara te nit seen biir am dara mais li c'est pas lu wóor la bàyyi seen wàllu mooy la seen i doom yi la ñuy wax pete bi la ko ñu ñoom ndaw moo wax pete mu dimbali ndeyam ndaw moo wax pete mu dimbali bàyyam